xam nga Touba dafa am ñi ci wàllu ndox da ci am ñeenti jafe-jafe jafe-jafe bi njëkk ci wàllu ndoxu Touba muy eau potable ndox mu ñuy naan. beneen jafe-jafe bi muy les eaux pluviales ndox taw yi beneen jafe-jafe ci ndox mooy les eaux usées mooy ndox yu jóge ci wane yi beneen jafe-jafe bi mooy remonter nap, nap, bi nekk Touba li ko Touba mosquée nap, bi dafa remonter d'une manière extraordinaire Lolo, moi, enjeu moo war a ou enjeu wu màggal Touba ren ren bu ñu doon wax thème mu ren Temu Magal Touba ren Touba face aux difficultés des eaux loolu nag sëñ Saliou Mbacké yal na ko yàlla le leer en 2000 euh, le 14 9 mai 2017

pour ñu def ma conseil spécial ci conseil rural Touba dénk ma lu ñuy wax wér-gi-yaram ak assainissement biñ ma dénkee loolu wér-gi-yaram ak assainissement ci la moom woowaat tamit proposé waan ma poste président de conseil d'administration bu hôpital Matlaboul Fawzayni Touba ne ma sagam dañ laa dénk wér-gi-yaram ak assainissement kon structure bi gën a rëy ci dëkk ci wàllu wér-gi-yaram nañ la ko jox nga jiite ko ci lañ liggéey yàlla dogal bi mu génne ma mille jugee 2011 2011 ba deux mille 2013 ma nekk PCA hôpital Matlaboul Fawzeyni bi mu génnee àddina ma daal di e, toog 2013 laa fa jóge deux jógee 2014 bu nekk meeru Mbàkke ci loolu it e, bi ndox mi amee jafe-jafe sëñ Muntaxa yan na ko fi yàlla yàggal tam ànd ak wér ñëw na Mbàkke seet si ma ci mairie Mbàkke bi def fa 45 minutes li mu bëggoon mooy li nga xamante ni fii ñu doon footballé ñu def ko Kër Sañ Touba ndax Kër Sañ Touba la woon loolu def nañu ko ba liggéey bi tàmbali na yónni na fi ndaw ku ñuy wax sëñ Cheikh Abdou Latif ak ku ñuy wax sëñ Moustapha mbay Njañ pour mu laaj ma man lan laa ban position laa mën a taxawee lan laa ko mën a jàppale ci Touba mu def ma loola mu ne ko lu ma liggéey loo ma liggéeyal loolu waraloon ma àndoon ak directeur général ONAS ak directeur général SVTP pour que ñu liggéey pour li nga xamante ni mooy euh, projet assainissement daaw bi ñu jàpp ci ànd ak ñoom ba keroog yàlla stabiliser liggéey bi. dama obligé woon jël sama ay tool ubbil ko waa ONAS ndox mi ñu doon pompé te amuñ fu ñu ko yóbbu ñu mën ko faa lañ fa bayoon lépp it mais. moo nekkoon solution bi nga xamante ni pour ñu mën a régler problème inondation yi mais parlant ci ndoxu eau potable boo xoolee jamono yi la ci ginnaaw jël naa sama initiative personnelle dem turki kenn yenu yu maa demal sama bopp pour waxtaan yi ak benn société bu ñuy wax Dayatek DATEC bi ku wax Mohamed Kazansi nek borom alal bu bari il pèse 9 milliards de dollars mo est président de Galatasaray Il a ak ñom à travers DATEC ci Il la pro la leen proposé une étude de projet ñu waxtaan ci ci projet bi ba ba MOU pour que ñom ñu mën def une étude approfondie et détaillée ci projet Lac de GUERRE Touba Mbaké projet Lac de GUERRE Touba Mbaké bi biñ ci waxtaanee mën nañ ci nañ ko waxtaanee nañ ci fexé ba étude bi jaarale ko ci ñetti zone Sar Dara Touba mu 211 kilomètres Kër Momar Sar Louga Touba Mbaké mu nekk 155 km Kër Momar Touba Mbacké mu nekk 133 km. pourquoi Dara parce que bëggoon nañu projet bi bu ñu ba état bi euh, d'accord ba ñu ko exploité ñu mën a connecté ñu mën a alimenté Linguère ak Dara ndax c'est une zone sylvopastorale sunu mbokk pël yi dañu am jafe-jafe ndox li tax ñu bëggoon ko jaar Louga pour permettre Louga aussi mën am ndox.

400 000 mètres cubes jour avec 4 barres de pression Donc actuellement nous avons une capacité de 125 000 mètres cubes jour temps normal que forage yi 29 forages ak 3 yu 3 UBS, bees yi ñaari duubaal nekk ce qui veut dire que kon 31 forages si nous dëgg dox normal pas passé à 140 000 mètres cubes jour alors que bu dee lac de guerre la dana am deux cent mille mètres kon ñun li ñuy te li ñuy am jafe-jafe temps normal double bi la ñuy am kon avec deux cent mille mètres lu ñu amati jafe-jafe bi mu paree kilifa gi ko war a yëg yëg na ko ñi ma ko war a waxal wax nañ ko mais da nga gis ne automatiquement bi ma ci communiqué rek am na yeneen nit yu ci jogaat engagé wu ne dañ koy def te du demee noonu affaire du affaire daanukat bokk na ci li ñuy yàqal daanu kat hôpitalu matlabul fawzaini bañ koy lancer en tant que esprit projet la ci nekkoon diko fekke ci rom bañ koy lancer ak sëñ dam ndjay maa ngi koy sante diko féliciter mais bo xolé fawzaini tam mo am jafé parce que liggéeyu kat lañ ko liggéey parce que dañ dajé mobiliser xaalis nañ am yéene mais du démé noonu kon projet yi am Touba yépp ci ëpp affaire daanukat la projet yi xam xalif généraux yi ñoo koy porte li ci ëpp day ànd ak lucidité ci buñ koy teg comme l'université dafa nekk dañ ko teg ci lucidité xam-xam aku dal liggéey ko ci liggéey bu baax boo xoolee liggéey yi fi doomi Sëñ Tuubaa liggéey mais liggéey yi daayira yeeg kuréel di liggéey li daanu bi dafa ëpp loolu it dañuy soññ rek ndax ay ñi koy defit ay jambar lañu ndax ño tané ñiko defut man nga sax ño gën ñiko mën mënte defuñu ko mais le projet Lac de Guiers Touba Mbacké dafay ànd ak ben centrale solaire bu 6 mégawatts ndax ndox cherul courant bi mo cher mais dama leen proposer né nañ def deux centrales solaires ben Touba ben Kër Momar Sarr pour que bu ben paane morom jël ko mais li ma ci jëlaale en compte mooy bii ne Touba day mën a jël en charge jumaa ji ak infrastructure yi nga xamante ni xalif général moo koy fay ministre central na ko mën a jël en charge ñu ne kon nañ andi ndox mi ba Mbàkke ñu bochene ko yoon wi jëm Kaffrine pour ëllëg buñ demee ba am projet d'extension état bi mën a utiliser réseau bi pour mën ko jàllalee Kaffrine beneen bi ñu mën a utiliser réseau bi pour mën koo jàllalee fi nga xamante ni mooy Kaolack wala Diourbel fi ma bëgg a duggee ci loolu pour tëj ndox mu neex mi état du Sénégal dafa jël ndoxu les communes urbaines dénk ko seen eau ñu koy exploité état du Sénégal jël ndox yi nekk ci les communes rurales dénk ko yeneen GIE ñu koy exploité kon état du Sénégal war na mën a euh, autoriser pour que Touba am une société anonyme projet. Parce le projet, le projet bi, bo 133 km, si on 200, 200 km de réseau, ça va coûter moins de 180 milliards. Si on prend par exemple gat gat 300 000 ménages, si on 300 000 ménages minimum, si on fait 6 000, chaque ménage 6 000 par mois, 1 milliard 800 24 mois, il n'est que 21 milliards 600. 21 milliards 600 multiplié par 10, il y que 216 milliards. Donc le projet est rentable. Dans ce cas, l'État du Sénégal, l'aide de confort recte les la société Bobo, nous avons que le général de Mourit est mort, nous avons dit que 80% est mort. 20 de bi nga xamne mo koy liguey xam nga pour lan pour mo am ci intérêt pendant 15 ans pour def transfert de technologie ndax bu ci amé intérêt pendant 15 ans du nangum yaq dana former ay nit dana ci liguey dana am intérêt bu ci top bo xamanteni du bëgg mu gawa ci lolou lan lay 10 ans et maté mu lérnal les 80% des 216 milliards environ day resté ci société bi société boobu mën na doon société boo xamante ni bénéfice yooyu mën nañ ko jël di ci tabax ay tali ëllëg tabax ci ay hôpitaux tabax ci ay école parce que Touba war na dépassé bu soxlaa lamp sax maanaam ay nit na nañ ko jaayante kon war na am benn ay ay yoo xamante ni dafay bàyyikoo ci ndax boo xoolee la commune de Istanbul am na trois cent six cent entreprise la Istanbul la commune amna 600 entreprises yoon moo ko moomal di liguey bénéfice du gaat ci commune bi commune bi diko réinvestir ci dëkk bi te lolu bu jallé amna d'autres projets lu melna mbalit mi Touba mën na ko autofinancé nga xamanteni la cay génn dañ koy réinvestir ci ci dëkk bi ak ci doomu aadama kon lolu la amone ci lu wax ci li xamanteni moy ndoxu eau potable bi ñu war a naan mu dess eau pluviale bi

yàqatool yi xoo ci lu bari mu ne am na commission bu ci liggéey ci guddi ay 2 heures du matin laa bind ci page Facebook am xamal ko ne ko dégg nañ li nga wax mais bassin de rétention Darou Rahmane ak bu pof di menace la ci askan wi 2 heures du matin 6 heures du matin bassin bi toj ce qui veut dire que kon il faut que état bi 700 milliards yi mu wax ne def na ko ci muy programme décennal d'investissement d'investissement pour l'assainissement programme décennal de gestion des inondations euh, 700 milliards déjà tout amoon milliard 200 muy deuxième réseau 23 milliards mais 23 milliards tout tuuti Tout li tax tout. la tuuti le la deuxième prix martiale du Sénégal on parle de prix martialité quand on fait allusion à la la au développement démographique mais aussi à la contribution économique dans un pays boo xoolee man dañ ne Touba mooy deuxième ville économique Comme comme au Sénégal ginnaaw bi Touba nekkee deuxième ville bi le plus peuple ci ci Sénégal te boo nee da ngay allusion à la région de Dakar comparé à la commune de Touba ou à la ville de Touba léegi kon comparé woo région avec région comparé aux ville avec ville mais région avec ville ngay comparé kon région de Dakar Touba ginnaaw région de Dakar Touba moo ëppale population que yeneen régions ça c'est un ba pare boo xoolee euh, euh, li muy contribuer ci koom-koomu réew mi Dakar rek de région de Dakar ngay boole les cinq communes ngay boole seen koom-koom Touba door nekk deuxième ville bi ëpp lu muy contribuer ci économie Sénégal kon d'une manière proportionnelle fu état du Sénégal jëlee 216 milliards. investir ko ci KMS 3 mu jóge Kër Momar Sarr dem ba Sibi Xotaan dugg Thiès dugg Mbour dem Dakar sur deux cent quatre-vingt-quatre kilomètres état def ci deux cent seize milliards te ñoom koy defal ay sénégalais lañu kon état boobu war naa mën a jël aussi cent et quelques milliards même su ko mënul sax defar leer de confort accompagner les populations de Touba ñu créer une société anonyme porter le projet lettre de confort bi ñëw.

Touba par bis di indi ay légumes ak ay fruits alors que diggante Kéré ba Mayel presque 15 km, la ba mu ëpp 15 km all bu yaatu la war sa faa def ñaari bassin yo xam dana goudé 500 mètres yaatu 200 mètres mu nek des bassins ben bi rétention ben bi d'infiltration ñu mën accompagner avec des moyens substantiels yu am doolé population Kéré Ndaw Kéré Mbay Mayel ak ak Curang nous accompagnons ak ay moyens de def de culture fourragère de la transformer de ko des Touba ak zone Nous avons nañu def aussi un bassin Misra, ak Touba Fall ak Fall ak Madina Tour ndax bassin de 500 mètres sur 200 dimensionné ko benn bassin de rétention un bassin d'infiltration. Nous accompagnons kilifa yi Baye Fall yi ñu dem dafa di fa bay pour nekk de véritables fournisseurs de Touba et des autres régions war nañu fait defar deux bassins de rétention ci le dalangaabu pourquoi parce que zone est ni ñëpp daw faire un maraissage, mais boo xool actuellement napp bi dafa daw pour mën permettre à xur wi ñu mën a amaat ndox ba napp bi recharger ndax bassin d'infiltration napp yi recharger pour investissement yi ñu fa def mu bañ a yàqu ndax boo xoolee ñu bëri ñu jaay seen tool parce que napp bi daw na ndox amatul te lu ëpp ci ndox mi ñuy aussi fa lay jógee kon ñu dafa un grand bassin d'infiltration dana aider napp bi pour mu remonter pour activité bañu bañ taxaw loolu suñ ko defee danañu régler ndoxu taw Touba bi muy mën a génn Touba mais bu dem ci zone yoo xam ne dañ koy utiliser di ci bay muy dikkaat ci askan wi mu créer de l'emploi créer aussi de l'écosystème ndax dañ ko mën a saan defal pisciculture ba rupture jën yi am jafe-jafe yëpp duñ ko mën a am duñ beneen bi ci topp muy les eaux usées eaux usées bi état bi dafa ci benn effort bu am solo mais depuis un an usine bi doxut depuis un a euh, projet bi dafa taxaw ndax bassin bi gën a mag ñu ko def Mbàkke foofu it li taxoon ñu xalaatoon nañ ko def Mbàkke projet état te dañ ko dans le long terme et dans le moyen terme ndax infrastructures projet 10 milliards 800 presque 80 pour infrastructure projet bi lañ ko investir muy bassin bi ñu sécuriser ko extraordinaire ndax dañ non seulement dañ ko bétonné mais dañ ko def étant. te étang bi mën am une durée de vie de 20 ans ce qui veut dire que nous avons fait ko def jege ak zone protégée une station de vidange bi 500 mètres d'une part et d'autre nit waru faa dëkk kon war nañ ko connecté ci zone station de boue de vidange bi mu nekk benn dak boo xamante ni buñ soxla engrais ci station de boue de vidange bi lañ koy mais ndox mi jógee fële tamit ci step bi muy eau usée bi dañ ko mën utiliser pour l'arrosage ndax doo soxla engrais ndax boo demee dëkk bi ñuy wax Fandène moom la ñuy def beneen bi ci toppit ñu gis ne buy xas di dugg Mbàkke système gravitaire la y a 4 mètres de profondeur nga xam installé ñun installer système d'assainissement bi la duñ soxla station de pompage loolu il faut nga am idée boo xamante ni da ngay nekk euh, ku am gis dans le moyen terme nga xamante ñun bu projet bi pare rek chaque année ñu jël 40 millions wala 50 millions ci caisse maire bi mën a connecté 200 maisons wala 250 maisons bu yàggee tuuti rek da nga connecté dëkk bi yëpp yooyu yëpp ay ay ay pro ay vision la ñu amoon yoo xam ne c'est des visions proactives yoo xamante dañ ko tegoon pour que projet bi ma dem mais foofu it état depuis un an état du Sénégal avancé ci projet bi teg na ko ne à côté li jëm ci remonté napp bi loolu li ñuy actuellement li ñuy def nii daanaka wax naa waxtaan naa ci ak ay euh, ay géologue euh, waxtaan ci ak urbaniste mais crainte bi mu l'urbaniste la mooy ndox fépp ne stabiliser wu pression euh, couche de euh, couche bi dana ko mais soo ko pompé pression vide moo fay bâtiment ce qui veut dire que ñoom ñi ngi liggéey pour régler un problème mais ñi ngi indi yeneen problème dans le moyen terme mooy fépp fu mo napp bi newoon ba ndox mi remonté ba créer fa zone ba taxaw fa soo pompé ndox mi dana yéeg ni mi dana yóbbaale suuf suuf soosu mu yóbbaale ëllëg day rës mi ngi mel ne teen teen da nga gis ba yàgg teen mi dagg ci suuf pourquoi mu dagg parce que ndox mi pompe bi génn mi ngi xëccaale suuf di ko yóbbu te suuf sa dafa am fu mu logé woon mooy mujj dagg ce qui veut dire que on est en train de régler un problème mais on crée d'autres problèmes problème yi crée benn bi c'est d'ordre di euh, d'immédiat mooy ndox moom ñuy pompe ña ngi koy pomper di ko yóbbu Daaru Rahmaan muy génnaat dugg ci toolu waa Ngasama yi ak waa Daaru Rahmaan jëm Kër Kàbbu kon kon ñu ngi ñu ngi jëlee ndox ci dëkku Sëñ Tuubaa fa ay doomi Sëñ Tuubaa rek mais aussi di ko tuuri foo xam ne dëkku sëñ Tuubaa ay doomi sëñ Tuubaa fa dëkk te waruñu jëlee ci pencum doomi sëñ Tuubaa ndox di ko sotte ji ci pencum doomi sëñ Tuubaa loolu du équité du lu rafet kon dafa laaj toog waxtaanaat te fañ jëlee ndox ma ci ay njabootu kër sëñ Tuubaa lañ ko jëlee yóbbu ko ci zone boo xam ne yàq na liggéeyu njabootu doomi sëñ Tuubaa ndax sëñ Abdou Mbacke borom dër bi mooy cinquième doomu sëñ Tuubaa cinquième doomu cinquième doomu sëñ Touba boobu waruñu mën a jël nag ndox ci ay pénc ci doomi sëñ Touba di ko yóbbu ci dëkkub doomi sëñ Touba bañ leen seen liggéey yi nga xam ci lañ doon suturloo loolu it lu jara waxtaanaat la ndax état bi aussi ñoom xamuñu lu ñuy def léeg-léeg ñoom dañuy xool li leen arrangé ñu def ko passer à la vite supérieure mais il faut que kilifay Touba bu projet jugatee ñu ne ah nañ def ndànk nañ xool projet fan lañ ko yóbbu yan impact yu négatif la ak yan avantage concurrentiel la kon napp yooyu ñuy pompe nañ bàyyi xel ne ñi ngi koy jëlee ci Touba di ko transféré Daaru Rahman mu continuer di yàq ay tooli jàmbur ay ay ak ay investissement jàmbur ba yàq sax une partie ci kër sëñ Modou Kéemaan sëñ Touba jur baayam beneen bi ci topp mooy ndox mi zone yi mu newoon ba adhéré fa ci suuf soo ko pompé suuf samay génnewaale ëllëg bu rësee yan affaissement lay jur lan la mën a yàq ci ay batiment yan catastrophe ma jël moo tax il faut que nit ñi dañuy war di def ay étude approfondie xool luñ def rek facette bu ci nekk lan la war a mën def ci lu baax lan la war a def ci bon kon en résumé loolu mooy ñeenti problème yi nga xamante ni relaté nañ ko ci ndoxu Touba muy eau eau ndox mi nga xam ne moom la ñu war a naan muy eau potable muy ndox mi nga xamante ni mooy eau pluviale bi ndoxum taw mi ak ndox mi nga xamante ni mooy eau usée mooy jóge ci wana yi ak ndox mi nga xamante ni mooy ne ci nappe bi nga xamante dafa nekk une remontée boo xamante jaaxal na ñëpp thank you